فاز الذين حافظوا على سيرا زين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki jullit yi bokki talib yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey am yéene yi àndaat ak yéen jataay ñu daan ànd ak yéen muy jataayu Taysiirul Asiir te tey ñu toll ci turu juróom benneel wi muy assalaam sëriñ bi wax ci xas léegi ni wa salli ya salaamu wal tusallimi suñu juróom benneel ci tur yi asmaul ci asmaul husna yi benn yoon dong nag la ñëw ci alquran ci xeet bi mu ci ci doon noonu ci ci tur mu dikkee muy aaya bi suñu wax ne wallahu alladi la ilaha illa huwa almaliku alquddus salaam kon boobu dañuy wax ni benn boobu la ñëw ci noonu mu tëdd ci alquran wàcc rot na it ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daan def bu jullee ba sëlmal julli farata wax ne allahuma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikram ci saxiixu buxaari muslim ñu jële ci ibn mas'ud radiallahu anhu mu wax ne dañ daan def bu ñu masaan julli ba noppi ba sëlmal ànd ak yonente bi dañuy wax ci biir julli gi ne assalaamu alallahi xabla ibaadihi assalaamu ala jibrila wa mikail assalaamu ala fulaani wa fulaan yonente bi mu solmalee wëlbati ku jaakaarloo ak nun ni nu inna allaha huwa salaam yàlla mooy assalaam ku ci toogati di julli na wax ne attahiyaatu lillahi wa salawaatu wa tayibaatu assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin mu ne saa bu waxee loolu bépp jaam bu baax bu nekk ci kaw asamaan mbaam nekk ci suuf rek sa ñaan googu dina àgg ci moom nga dolli ci ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba waxee loolu nag seet lu la neex ci ak ñaan nga tànn ko ñaan ko kon noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale maanaam asalaam si làkku arab nag moo ko dañoo jege ndax boo nee xaddasahu li muy tekki mooy sellal nga ko ci lépp lu ñaaw waaye asalaam it nag ñu ko jële ci asalaama mooy ak mucc li muy tekki kon mooy mooy ki mucc ci yamoo ak kenn ci mbindeef yi assalaamu day ñëwee ba tey ci maanaam jàmm rek muy al aafiya ibnu xayim radiallahu anhu day wax ci nuniya bi ni hada wa min awsaafihi alquduusu du tanzihi bittaadimi lirrahmani wa huwa assalaamu ala alxaqiqati saalimun min kulli tamsilin wa min nuqsaani kon turu asalaam nag waaye dikkaat na baat bi ci jëm bopp nag lu dul mu dikkee noonu ma ko waxee ni benn yoon la ci alxuraan waaye baatu asalaam rek ak salaamun ak tëggeen yi demee noonu dikk na ci alxuraan ci ay maanaa yu bokkut nag kalimatu salaam ba ci jëkk mooy aw tur la ci tur yàlla yi moo dikkee ci aaye boobu ma tuddoon léegi ni benn lañu ci alxuraan kon tur yu yàlla wi moo ñëw foofu ci aaye boobu foofu mi ngi jullu asalaama mucc asalaam ci àq yàlla li muy tekki mooy mucc ci mboolem ayib yi ak mankaa yi ci jëmmi boppam ak meloom ak yi jëfam ba tey asalaam day ñëwee ci maanaam zu salaam ni ko Ibnu Qayyim waxe dafa ne asalaam ci su leer su yàlla wax la ci borom xam-xam yi wax benn mooy masdar la dañuy jublu ci ni mooy boroom jàmm ñu asaf zoogi zo salaam ñu asaf zoogi day dikkee maanaam boo nee asalaam ci tur yàlla day amee maanaam asalaam ñu asaf mu baax mi bu ñaar bii day dikkee ci ma mu amee maanaam masdar day dikkee masdar amee maanaam faa'il muy salaam lañ ci ñun mooy saalimatun min kulli sharrin aji mucc la ci bépp ay ci lépp lu bon muy aw yiw woo xam ne aw ay raxu lu bon raxu kon bu ñu nee yàlla salaam la mooy ñu di ko firee ni mooy ay jëfam mucc na ci lépp lu bon bépp ay ay meloom mucc na ci bépp mankaar kon yàlla salaam la liñ ci lu bu ñu ko waxee mooy saalimun la min ashariki mucc na ci aji bokkaale mucc ci ndend mucc ci am nawle mucc ci soxna mucc ci doom kon bu ñu xoolee ni ko Ibnul Qayyim waxee bu ñu xoolee benn benn ci melo yi suñu borom danga gis melo bu mën a doon rek day mucc ci ab safaana muy la koy indil ak manka da ci mucc boo ne yàlla xaadir la kon yàlla salaam la ay saalim la min al ajisi ku mucc la ci ak tële iradatullahi salaamun la min al xuruj an al xikma buñ ko waxee mooy yàlla iraadaam lu mucc la ci génn xikma génn ak xere waaye xam-xamu yàlla yàlla bu ñu nee aalim la ilmuhu salaamun min al lisaan mooy lu mucc la ci fàtte wala di soxlawoo fàttaliku mbaa ay xalaat waaye bu ñu nee xayaatullah ñu ne xayaatuhu kon mooy itam saalimatun min almawti ay salaamun min almawti bépp melo si melo yàlla yi rek salaamun la ay saalimun la ci ab saxaaram ci lu koy andi ak manka samuhu ñu ne salaamun min assamami wa naqsi dafa manqué bu ñu nee salaam sala samuhu ñu ne dafa mucc ci tëx ak manqué dégg kalaamullahi ñu ne salaamu min al kasibi wal laxwi wal xotai wal foxsi yàlla ay waxam dafa mucc ci fen mucc ci ay neen mucc ci njoom se mucc ci lépp lu ñaaw kon loolu benn la ci maxnaa yi alquran andi assalaam muy dikk na doon tur ci tur yàlla ñaareel ba salaam dikk na ci alquran amee maanaam nuyoo ak taxiya suñu borom wax ci alquran ne wala taqulu liman alqa ilaykum salama am ñu jàng liman alqa ilaykum salaama lasta mu'mina kon salaam de dikki ci alquran dikke maanaam nuyoo suñu borom it def nuyoo ay nuyoo jullit yi ci àdduna ak seen nuyoo ak moom bu ñu dajee muy baatu salaam li suñu borom wax ci alquran wa taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam mooy seen nuyoo ci buñ dajee ak moom mooy baatu salaam am na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi bu wér mu wax ni yàlla bi mu bindee aadam ba matal bindam mu doon lu yamoo daf ko wax ni ko demal sa mbooloom malaaka yelee nga nuyu leen te déglu leen lu ñu la nuyoo rek na nga xam mooy sa nuyoo yow soo xeet ba mu demee ca mbooloom malaaka yi ñu leen assalaamu ñun ñëpp ñu delloo ko ne ko wa salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñoom ñoo ci dolli wa rahmatullahi wa barakaatu ñu malaayka yi moo xam ne kon loolu mooy nuyoo bi dogal mu war li ko nuyoo moom aku xeetam moom ak i sëtam ab jullit bu nuyoo mbokkum jullitam ni ko asalaamu aleykum day mel daf man mii kat ak jàmmoo laa ak yow jàmm képp mooy bàyyi ko ci sama wàll bu ko defee mu xamee ca ni kii du ab noonam ab xaritam la mu xam ni jàmm ko tax a jóg waaye xeex tax ko jóg bu ko defee mbokkum jullitam mu delloo ko loolu yi ni ko waa aleykum salaam muy tekki ni mayitam di jàmm rek bàyyee ko ci sa sama wet jëm si ci yow kuloo maa yow xeex maa yow duñu ay noonu ay xarit lañ ku ñu wax Sufyaan ibnu Uyayna radiyallahu anhu dafa wax ni nit ki fi mu gën a wéete ñetti barab de ñetti barab ci la nit di gën a wéete mooy bi mu jëkkee ni cëpp fii ci adduna ak bis bi mu duggee ci bàmmeel ak wala bis bi mu faatoo rek ak bis bi ñu koy pank bis bi ñu koy lekkat mu ñett yooyu mooy ñett yi su yi nit gën a wéete ci àdduna moo tax suñu borom terale Yaxya Yaxya ibnu Zakariya alayhi salaam mu teral ko ci mu mucc ci ayu ñetti birab yooyu ni wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu hayyan waaw ndax bis bi nit kiy dafa ñëw génn fa mu nekkoon dugg ci beneen monde bu yees moo tax lu ci ëpp nit bu ni cëpp ci àdduna la muy jóge mooy jooy ndax wisaay ak jaaxal waaye bis bi muy dee mooy bis bi mu gisee ñoo xam ne tey leen mas a gis mosu leen gis wisaay boobu kon ci bis yi gën a naka noonu nit ki bis bu muy dekki dekki rek gis ba boppam ci béréb bu yaatu boo xam ne xamul fii fan la wéetaay woowu mun na ñett ci béréb yu wéetaay yooyu moo tax suñu borom musal ci Yaxya bnu Zakariya ni wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu hayya ñetteel bi ci ni baatu salaam dikke ci alquran dana dikke amee maanaam islam qaala taala suñu borom wax ci alquran ne yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam ñu jubluñ kon subula islam alquran andi na andi na salaam mu ñëwee ci maanaam tagg tagg wu rafet te mooy li suñu borom wax ni salaamun ala nuuhin fi lalamin salaamun ala ibrahim salaamun ala muusa wa haarun salaamun ala ali yaasin loolu aw tagg la wu suñu borom wax ndax suñu borom dafa wax ci euh, Eh, noonu suñu borom wax ci alxuraan ibnu kasir day wax ni yàlla li mu leen li mu leen desalalee ñu di leen fàttaliku fàttali bu rafet ak di leen tudd tudd tudd di leen tagg tagg bu rafet moo tax ñu leen di nuyu di sàkku di leen sàkku jàmm ci mboolem xeet yi ñëpp di nuyu di taslim ci ñoom ñu waaye salaam ci alxuraan day ñëwee ci maanaam aw yiw lu baax jàmm wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama at-Tabari di wax ci am tafsiram wa iza xaatabahum al-jaahiluuna billah mooy ñi umple yàlla bu ñu waxante ñoom ci leen lu leen ñoom dañu leen di aw yiw leen di tontu aw yiw mooy jàmm képp moom tax a kon loolu mooy dikkuk baatu asalaam ci alquran ak maanaa yi mu amee jaam bi lan la war a mën a jëriñoo ci tur woowu tur yàlla woowu muy asalaam la ci njëkk mooy mu xam ni jàmm ci yàlla rek lay bàyyi ko sécurité yi ci yàlla képp lay bàyyi ko ku sàkku jàmm ak kóolute ci kudul yàlla yëpp doo ko am loolu li ci jur bi jëkk jëriñoo mooy baat boobu muy asalaam te jublu ci asalaama te muy jàmm yàlla dong la man a bàyyi ko foo ko sàkkoo fu dul ci yàlla doo ko am loolu kon mooy maanaam li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne allahuma anta salaam wa minka salaam gis bi dafa jàpp ni jàmm ak sécurité ci jëmmi boppam ak ci këru boppam ak ci njabootu boppam ak ci société boppam ku ko bëgg faaw nga wéeru ci yàlla jaxlu ci yàlla te tënku ci yoon wi yàlla rëdd ngir bëgg doomu aadama bu jàcc foofu rek ñu mën a jële jàmm kon nit ki saa bu gënee tënku ci charia charia te mooy yàlla lu mu ci gën a tënku rek di a am jàmm li ko gën a mën a maye ci kaw suuf jullit bi nag muccee ci wor mucc ci iñaan mucc ci ak mbañante mucc ci ak rëy mucc ci njëstal mucc ci ak naafeq ay cere nit mucc ci lépp lu ñuy tere boobaa lay dikkee suñu borom bi xalbin salim ci alxuraan wax te wax na ni kenn du mucc ku dul ki ëllil yàlla xol bu mucc ay ab jullit kon kenn du ko melal ci asalaam mbaa ñu di ko melal ci islaam nga def bu ay jullit yëpp dañoo mucc ci aw ayam ayu xolam te mooy bañante ak iñaanante waaye ayu làmmiñam ak cër bi ci yëpp yi mooy wax leen di ñaaw mbaa mu di leen ko def jullit dëgg bala mu nekk jullit jullit dañuy mucc ci aw ayib al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi jullit jamono bu ne dafa war a dox ci tasaare jàmm ci kaw suuf ci diggante ci ci ci mboolem nit ñi ak di fekk luy firi aw ay luy doon mu fexe ba di ko fegal nit ñi kem di dox ñëpp ñëpp tasaare diine islam ndax mooy diine jàmm te mu mën a indi ci kaw ki mel noonu mooy kii tudd assalaam ci jaamu yàlla comme ni ko imaam Xasal yi wax borom xam ne bu ñuy leeral turu assalaam dañuy wax ni mooy koo xam ni jëmmam dafa mucc ci ay ayib ay melam mucc ci ay manka ay jëfam mucc ci lu lu lu aw ay aw ay noonu lañ koy tuddee waaye ñu ne waaw kon ay yii ci kaw yi ñuy gis suuf ci lu lu li li li li nuru aw ay ci kaw suuf muy lu bon mooy diggante tawat yi ak xeex yi ak guerre yi am ci diggante nit ak mm, tremblement de terre yi kon ndax loolu da dul aw ay wala boog bu doonee aw ay kon yàlla daf ko bind loolu kon ab laaj la boo xam ne buñ nee suñu borom salaam la te salaam mooy koo xam ne jëmmam mucc na ci ay ay melow meloo mucc ci manka ay jëfam mucc ci aw ay ñu ne kon ay yi ñu gis ci kaw suuf fan la bàyyi yàlla daf ko ndax dafa am kon lu am ci kaw suuf si yàlla dugalu ko wala kon loolu ñu ko mën a firi waaye loolu ñu ko firi dañuy wax ni suñu borom aw ay kese kese kese du bàyyi ko ci moom aw ay kese kese saa bu aw ay ñëwee li ngay jàppe aw ay yow boo ko càmbalee ba ci biir aw ñëw la ci suuf yàlla kon lépp lu mu tubal duwal ak yële moo tax suñu borom wax ci alxuraan ni qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tashaau wa tanziu l mulka mimman tashaau wa tuizzu man tashaau wa tudillu man tashaau bi yadika al xayru néewul bi yadika al xayru wa charru bi yadika al xayru nga wax ñu xam ne ci kon lépp lu mu def aw yiw la doonte aw ay la ci kaw yiw a nekk ci suuf loolu kon ñu xam ne ko noonu kon luy nuru aw ay bu ko suñu borom tëralee day fekk ne am na maslaha bu nekk ca suuf kon yàlla dina indi lu mel ni aw ay waaye ngir sos na résultat yees moo tax moo ni xisab xadir ak Moussa dalil fekkal la ci loolu ndax ku ne xam na ni bi ñu duggee ci gaal gi lan jëkk a def mooy fekk aw dénk mu di ca sonn ba ni ko daj jëpp kon daj boobu day mel ni aw ay la ba mu ko defee fab ay sagar daggu daasa ko ci ba mu mel ni lu bon la waaye fekk ne ba mu demee ba di ko leeral Moussa dañu ko amma safinatu fa kaanat li masakina yaamaluuna fi lbahri fa aradtu an aibaha wa kaana waraahum malikun yaaxudu kulla safinatin gasba ñu ko gaal gii kat li tax ma yàq ko nii dafa am buur boo ay mas ay masaakin dañ ko ay miskin ay fuqara yoo xam ne ñii dañoo lomp nekk ci kër ga ñii di ci liggéey di leen ci dundal te buur biñ doon dajeel bu fekkoon ni gaal gi dara sikku ci day foqati gaal gi seen loxo te ñii kon dañuy ñàkk loolu ñu doon dunde suñu borom jox ma ndigalul ma yàq gaal waaye yàq gi kon loolu rek benn la la ca moom ba ñu doxee ba fekk ay xale yi foofu mu jël benn xale ba ci gën a taaru gën caa sawar fii ko fab aw def ni ko tël ci bëgg mu toj loolu aw ay lay ñëw ci kaw ba mu demee ba jàngal ko dañu ko wa amal xulaamu fa kaana abawaahu muminayni fa xasiina an yurhiqahuma tuxyaanan kufra di ko ngóor si dafa am ñaari wayjur yu baax te suñ borom xam nañ ni bëgg nañ ko mbëggeel koo xam ni bu doxee ak ñoom ci àdduna mën na leen yóbbu sax ci ak kéefar fanqal leen kéefar googee moo tax suñ borom digal ma rey kon rey bi aw ay lay ñëw ci kaw waaye fekk ne résultat bi ci biir jàmm lu baax defal kon noonu la noonu la loolu ñu nag ab dalil la ci ni suñu borom du indi ayu kese kese waaye lépp lu ñu aw ay sax aw yiwaat la ci biir da lay indi si daa bu gën baax kon noonu la ñuy déggee yàlla jëfam yépp aw yiw la aw ay aw ci am na ci xadis yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa charru laysa ilayk aw ay jëm siwu ci yow te suñu borom dafa bindu doomu aadama ngir mu texe da ko bind ngir texe texe googu mu ko bindal nag saa bu jàddee aw yoon yàlla da koy tegaat ci yoon tegaat gi ci yoon nag sorewut ak xale sa doom ju wàcc aw yoon moo xam dafa sàcc alal jàmbur mbaa dafa jalgati def lu war def mbaa mu fen ngàdd ba nga koy ngàdd mbaa tas ba nga koy tas mbaa yar ba nga koy caw jubluwoo ci lu bon waaye lu baax nga ci lu da nga ko bëgg jubanti mu jaar ci yoon bi kon suñu borom lépp luy nuuru musiba lu ki ci kaw suuf ab benn mu doon wëlbati nit ki mu delluwaat yoon yoon bu jub ba nga xam ne mooy tax mu am taxe mu di ko testé ngir bëgg mu doon ab munkar moo tax suñu borom wax ci alxuraan ni maa asaabakum min musibatin fa bimaa kasabat aydikum lépp lu leen jot ci musiba rek ni nga xam yéen a ko liggéey seen bopp ndax benn nga def lu tax ñu war laa jàjji wala ñu di la testé kon dana dikkee moom musiba ci amee maanaam test nga xam dañuy natt ne ci examen ko ba xam ci lu nekk wala wala nabluwannakum suñu borom dafa ne faaw dinaa leen nattu bi shay'in min al xawf wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat naa leen faaw ma nattu leen ci aslaf ci ak ragal ak xiif ak wàññi ko alal ak wàññi ko ay bakkan ak i meññ daani ko bashir as-saabiriin muñ googu nga xamante bu buñ ko defee lu lu yiw rëy la leen di fàggul moo tax suñu borom leen testeel yi ngir bëgg ñu muñ kon loolu am natt leen ngir bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg dara ñëw lu metti au lieu muñ ñu sant dañu far sant sax ndax yonente bi daan def lu ko lu bu ma sant am lu ko neex day sujjóot sant yàlla ne alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihat waaye saa bu dara masaan ñëw lu neexut day wax ne alhamdulilah ala kulli xaal sant naa yàlla ci mbir ndax mi dikkee te mbir mi mën naa am daal dikkee naqari waaye aw yiw la moo tax lépp lu ciy sant yàlla Sëriñ Tuubaa foofu la daan xool foofu la daan gis moo in aataytani fa fa ridan wa sabr bu ma joxee ma sant la waaye boo ma teree nag man nangu sa dogal boobu daa cee teg ni fal manaw wala xataau xataan minka laa min siwaak ndax maye ak xañe ci yow képp lay bàyyi ko bàyyi ko fenn ko dul yow faro bi trente del wax ni manauka afdalu min al ihsaani min malakin aw jinnin aw insaan man ñaan la nga teree ma nga gàntal ma mu ma gënal rafetal gu jógee ci nit mbaa mu jógee ci malaayika mbaa mu jógee ci jinn li kaw ni malaayika huwa al xataaya ngir su ma la ñaan nga gàntal ma gànt kooku mooy jënni ak may li mahwihi al uyuba wal xataaya ngir day day far ay ayib di far ay ñaawteef wa kawni ihsaanil bariyati xijaab rafetalu bi def kat kiiraay lay doon ci diggante nit ki ak borom kon ki xam yàlla dëgg day xam yàlla mooy asalaam lépp lu def jàmm la ak donte day ñëw aw ay ci kaw nga jàpp ni jàmm la ci gis loolu yi mooy ak xam yàlla mooy tawhid bi war doon diggante nit ki ak borom. kon moo moo wax moom sëriñ bi ni anta salaamu alladi sallamta kulliya min uyubi nafsi bi tayyin minka illahu yaay assalaam yaa ma musal ci sama lépp yaa ko musal ci ayib bi bakkan te nit ki kon bala mu mën a nekk assalaam da fekk mucc ci ayib bi bakkanam te mooy réy ak iñaan ak ngistal ak bañante waaye day mucc it ci ayib yi ay cëram te mooy du jëw nit du xas nit du yàq ab daram du ko ŋàññi du ko dóor du ko def lu jàll moo tax Serigne Saliou mas na maa jógee ci tool yi ci moom benn bis mu di ma laaj tool ya nu def ma ni ko tool ya day njëlbeen gi rafetoon na lool waaye ginnaaw bi lu mel ni mbenaat moo ci am mu ne ma waaye lépp sant ci war ndax mel na ni loolu ci yi gën a woyof ci natt yi la bokk ndax suñu doon mi ngi tàmbalee natt yi ci bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat kon naqsu samarat mooy bi ci gën a wees moom la di gis foofu yi sa diggante sa borom mooy di am solo ma daanee la ni tur yàlla asalaam nag dafa làmboo saxal mbooleen meloy mat yi di rek ci mbooleen meloy mankaay ci sunu borom tabaraka wa taala dafa amee moom asalaam akbar amee na la ilaha illallah amee na maanaam alhamdulillah amee na maanaam laa hawla wala quwata illa billah kon al baaqiyaatu saalihaat yépp dugg nañ ci baatu nga nangu asalaam ci ni yàlla mooy asalaam nga nangu ko dugal nga mbooleem melo yi ñuy sellale suñu borom ci yëloote moom di ko saxaloon mbooleem melo mat yi dugg nañ ci baatu asalaam di ñaan suñu borom jox na asalaam fi dunya wal axira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu